am lu waa waaye tey xam nañ lu nekk Serigne Saliou du moo moo mën waayam Serigne Saliou moo mën waayam néewoon na Serigne Béthio doo yàqu doo yàqule te waxoon na ni bu làqoo nañ ko jébbal boromam ci madinatu salaam njabootam nag fas yéene matal yéene cheikh bi ñu ngi def li ñu xam ni mooy formalité yi ngir ñu mën a xam ban bis la koor bi di ñëw bu ñëwee nu dajewaat la mu bëggoon nu defal ko ko ndax li mu bëgg rek lan koy defal nun du nu aw feneen lu lul fépp la mu bëgg ci ndigalam la rek lam no bàyyee rek ndax wax naag nun wax dëgg yàlla ah waaye nag xanaa ah war ngeen a xam ni nag wax dëgg yàlla xanaa nag war naa ak nun nag waaw wax naag nun nag te lim nu wax te nuñ ko jëfe waaw fi mu ne nii nag ay doomam ak ay soxnaam ñëpp a ngi madinatul salaam ngir nangu njaal yi sëriñ Saliou Thioune ak ñenn ci ay rakkam ñoom fa yéene dem rek seeti doomu Serigne Saliou Mbacke pour ñu mën a waxtaanee ci réglage yu mujj yi.